bi Latif Coulibaly moom itam am li nga xam ne moom moo di jaar-jaar ak euh, maam Alioune Less Camara ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, professeur. maa ngi leen mhm. jaale. Mhm. ñu itam ñu ngi koy journaliste yëpp mhm. ak soxnaam Ine ak xale yi. ak waa kër ga yëpp ñu ngi lay jaale. ñu bàyyi bàyyi la itam nga daan di yëkkati ay kàddu wala jaar-jaar woo xamante nii am nga ko ak euh, maam les kamara waaw Mame Less xam naa ko yaakaar naa bu baax a baax a baax parce que ñun ñu ñoo duggandoo daanaka ci liggéey bi mm-hmm. ñetti promotion yoo xam ne tegloon nañ ñoom ñoo nekkoon juróom-benneel. ñu ñu nekk juróom ñetteel daanaka daje nañ école mhm. waaye li ma jàpp ci moom muy nit ki nit ku am teggin mhm. ku am sutura buy mhm. wax daanaka du déggoo kàddoom mosuma dégg na maam des xuloo na ak nit jote naa nit ñu yàgg nañ kanam xam naa ne it yàlla may na ko xam-xam bu leer nañ bu amul natable mhm. jàng na ñeenti at université jëlee fa ci lim doon def lijaase yi gën mag nekk na koo xam ne itam mënoon na liggéeyam xamoon na liggéeyam tolloon na ci koo xam ne ñépp nangul na ni sëriñ daara la fi coon waaye lim ci mënoon ci def a rafetal def bi ñu bari def nañ ko amuñ loolu ñi ma gën a xam ci journaliste yi nag ak doon parce que nekkoon ak ñoom xëy na ñu ma doon liggéeyal sud la waaye nag ku mel ni Tidiane Kase ku mel ni suma doomi ndey xarit Asma Demba Ndiaye ak ñeneen ñoo bokk génération maa ngi am pàttaliku ba ma may suma bourse bi di dem as ma Demba Njaay moom moo woon boobu ñoom ñoo ubbi Walfadjri dama ndax ñëw liggéey ñoom maa ngi nekkoon sud mhm. boobu ñu ngi waaji sos dama fa doon bind moom bokk ñoon moom ñuy liggéey waaye yàlla boole woon nañu mhm. lees nag soo buggee wax ci moom mhm. lay njëkk frappé wax naa ko ci njëlbeen Mhm. mooy ay ab yar mhm. dëggu mhm. ak nekk koo xam ne kii amoon na kersa ak teggin waaye nag terewutoon moo am fayda gi sëkk ci li nga xam ne moo doon liggéey parce que fayda la njëkk ci liggéey fayda mooy xam ko di ko defee nañ ko santaane ñaari charte li ñuy wax déontologie ak li ñuy wax éthique ñaar yooyu mosuma liir lu mu bind ñu ne wàcc na ci. wallaahi lam ca waroon def ak nam ko waroon defee. Mhm. loolu man mosuma ko gis. Mhm. waaye xamoon na bu baax a baax a baax a baax la nga xam ne kuy jàngale journaliste da ko jàngale. mooy li nga xam ne moom la tubaab di wax. Mhm. retenue ak li nga xam ne moom mooy humilité. dëkkantal ba neen naa leen ku xamoon métier la waaye ku ci amoon dayo la ñàkk dayo foo ko fekk bu ci lu baax loolu yàlla mayoon na ko amoon na dayo amoon na xam-xam parce que journaliste balaa ñu nga mën nga ko dafa fekk la ngay def xam-xam lal ko bu ko xam-xam lal dal nekku fa ŋàññee rek taxul ñu wax journaliste mm-hmm. Mm-hmm. wax la nga xam ne moo xew ñu war ko jëfee na mel ak nañ ko santaane loolu mooy li nga xam ne moom question na moom yaru mm-hmm. am teggin mm-hmm. respecté ñëpp mm-hmm. loolu xam naa ko ci moom d'accord jërëjëf daanaka daal mun nañu wax ci tënk ni fi journalisme nekkee woon ñu koy def te nam gën a rafetoon moom bokk na ci nga xam ne tubaab moom laay symbole mooy mandarga ak jëppi xeetu journaliste bi nga xam ne moom la ñuy seet. Mm-hmm. képp ku lu doon bindam da doon da doon am yow ci sa bopp. Mm-hmm. mbégte ak bëggoon la mu signé woon sa tur nekk fa. Mm-hmm. am na am na ñoo xam ne tey bu ñu signé papier. yow da ngay am sax kersa ne man kii maa moom ñoo bokk liggéey bi. moom ñooñu itam daa leen gindi gindi ga nga xam ne. moo gën a maanaa ak solo ci liggéey journaliste vraiment ñàkk nañ ku yàlla yëkkati woon mm. mm-hmm. ku yàlla joxoon xam-xam mm-hmm. ku yàlla doon jox gis nga mm. xam ne ca la nekkoon jërëjëf voilà loolu nga man yàlla mayoon na ma wallaay ma bokk moom benn groupe boo xam ne bi mm-hmm. ay xaritam rek la loolu c'était au début des années quatre-vingt boobu ñun ñëpp daanaka ñu génn ndoor benn at ñaari at lañ daan rawante ku ci mel ni moom. Mhm. ak Asma Demba Ndiaye. Mhm. Euh, ak man mii ñoo bokk jaar-jaar ci journalisme. Mhm. parce que ñun ñoo ñëpp dañuy jàng ñeenti at université. te am fa lijaasa soog a dugg ci journalisme te loolu gis naa ne moom bokk na ñi nga xam ne xereñoon nañ trop xam lañ jëlee université lu leen mën a jëriñ. wala nga xam ne loolu lañ doon liggéey. moom. ak Asma Demba ya xamal naa leen loolu ak ak Abdourahmane ak ñeneen. Mhm. waaye du caa gën nag. tekki mhm. ne. Mhm. ñoo mënoon ca ndaje ma dama bëgg a firndeel rek. li nga xam ne xam-xam. li lay yokk la nga xam ne yaa ngi caay liggéey. ci eh, ngeen jëf yal na ko yàlla xaraa jën. jërëjëf jërëjëf teg loxoom xam ne moom la fi bàyyi. amiin yaa rabbi jërëjëf. ñun ñëpp am nañu naqare. waaye nag yàllaay dogal. Mm-hmm. yàllaay def. Mm-hmm. ñu nangu dogal bi yàlla def tey. Mm-hmm. asalaamaaleykum amiin waaleykum salaam wa rahmatulah rafet na. am na solo tegi eh, eh, seede itam eh, doon na loo xamante ni donc ñëpp mënees na koo dégg xel dem na itam ci képp koo xamante